allo waaw mais booy waaye nice nice maa ngi kondi mais instant maa ngi jëm maquette nii dafa am benn yëre bu ma bëgg a am fu ma war dem bu ma jógee maquette maa ngi ñëw léegi sa gaale non sérieux xaar ma rek yow far ok waaw baax na léegi waxoon sa saa ma naa xoolal samay tuba yi xoolal ma lii ci tuba yi nga sa njëriñ jaayatuñu dañuy maye ku room room nga sa njëriñ jaayatuñu dañuy maye naa dóor naa dóor naa dóor kiris kiris naa dóor digo digo digo digo gara kay ma jaay la sama yére yi sama wëri sana yi jël di wet for you know jël ñaaru sama kilo eh, dañu ni sama sama client la jàpp leen sama client maa amoo sa do ñëw jaay mbala la sa sa mbala sa mbala mbala sa mbala sa te ko ba grand loo jël sa loo jël sa maa la ko njëkk a wax loolu jël saa. client préféré. bàyyi tànk jàmbur wax naa la bàyyi tànk jàmbur. sama client préféré la Mama Ndiaye. wax dëgg nga doon danga gaañ doomu jàmbur bàyyi tànk jàmbur. yow doo dégg yow bàyyi tànk jàmbur. Dayila. Elle le monde part en couille. Non. Ça fait,